bismillahi irrahmani irrahim mbokki jullit yi ñu ngi ànd ak yéen di nafar suurata tawba ci biir saar wi ci lañu agsee ba wax ci biographie saxaabi bu tedd bi di sayyiduna Umayr ibnu Saad waxtaane woon nañ biographeem ci bi muy ndaw digganteem ak bàyyi tëxam boobu wala bàyyu jiitleem boobu di al aljullaas ak njàngat yañ ca defoon ak li ca ndaw ñi mën a jariñoo ci seen dund ak mag ñi ñu ne woon balaa ñuy noppi ci moom danañu tanaawul lenn ci dundam bi mu nekkee mag ndax mag ñi man cee jariñoo ak ndaw ñi ñu wax ne waa Hims ca Sham ba ñu amee problème ak jaraaf ya fa daan nekk dañ daan bind kilifa ga kilifa ga benn bis mu dogu ne danaa leen yónnee koo xam ne bu ñëwee du ngeen am fenn fu ngeen ko mën a sikki ba yàlla def mu yebal Umayr te booba mi ngi nekkoon ci liggéey bu mag di tasaare drapeau lislaam nekk ci jihaad ja des fa moo ko gënaloon ndax li mu doon ñaan yàlla yépp mooy dee ci yoonu yàlla waaye ba mu déggee ndigal lu bàyyi ko ci kilifaam di sayiduna umar ibnul xataab sayiduna umar ibnul xataab radiallahu anhu dafa bàyyi lépp lu mu jàppoon ñëw parce que yéene doxal responsabilité bu bees bi waxoon nañ itam discours bi mu njëkk a def discours bu gàtt waaye bu am ne nag am na lool wax ju bari du ko sotal ndax mbotti nawet yépp bu fekkente ne bii bu tëb walla mu yuuxu nga bëgg koo tàccu fa nga jëm doo faag mu xam ne kon jëf moo fi des mu ne leen au travail nañu dem liggéey mu umayru moomu qadaa umayru bnu saadin xawlan kaamilan fi xims lam yaktub xilaalahu li amiiril mu'miniina kitaaban lam yaktub xilaalahu li amiiril mu'miniina kitaaba walam yabcas ilaa bayti maalil muslimiina minal fay'i dirhaman wala diinaara fa axadati shukuuku tusaawiru Umara id kaana shadiida alxashyati ala wulaatihi min fitnati alimaara fala macsuuma cindahu gayra rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Umayr toog Hims ginnaaw bi mu jëlee palga at mu mat sëkk ak moo xam ne bindul benn lettre adressé ko kilifaam yónneewu ko itam benn dërëm wala benn diinaar ci loo xam ne wulaat yi daanañ ko dajale ci galak ak lu ni noppi googu ak tekk googu tax na Seydina Omar commencé di dute ci moom fa axadat shukuuku jamcu shakk tusaawiru omara ay taduuru fi nafsi omar mu commencé di xalaat nan waaw kii ma fal ko at mu mat sëkk lu bon bon xanaa waran na ma wax na mu tooge ak lam fa dajale ñu war koo dugal ci baytul maal seydina omar kaana shadid al min fitnati al imaara mu ne ak pal daal dafa doy waar bari na ko ñu fal nga soppeeku moo tax jaraaf yi daf leen daan bàyyi xel bu baax a baax a baax di leen tiital ndax bañ rek kilifteef gi ak pouvoir bi ak alal ji nekk ci seen kanam tax ñu changer doxalin te nag amul kenn koo xamante ki kii maasuum nga mën ngaa bañ a jàdd yoon kuddul sallallahu alayhi wa sallam doomu aadama dafa manqué yàlla rekk a mat matam googu nag ci la tibb am lum ci téye yonentam yi alayhimu wassalaam ba mënuñoo def lu dul yoon te ñoom ñépp seen kilifa mooy sayduna muhammad alayhi salaatu wassalaam alxaamid almahmud boroom cër yu kawe yi fa qaala li kaatibihi uktub ila umayr ibni saad wa qul lah ida jaaka kitaabu amiri almuminin fa dac xims wa aqbil caley waxmil macaka maa jabayta min fay almuslimin sidna omar ne wax secrétaire am ne ko bindal ma leetar bu gàtt jëme ko ci umayr ne ko bu leetar bi agsee ci yow na nga bàyyi lépp loo nekkoon te nga ñëw wuyusi ko te li nga yoroon dajale ko lépp ci alalu jullit ñi li nga dajale min xaraajin ak lu ni mel nga indaale ko تلقى عمير بن صعب كتاب عمر رضي الله عنه وعن عمير ba leetar ba àggee Umayr ibnu Saadin jot ko fa axada jiraaba zaadihi mu daal di jël benn kees walla benn mbuus def ci yóbbalam wa xamala ala aatiqihi qascatahu wa wicaa wudui mu dal di gàddu ci mbaggam ndab qasca mooy wicaa yuukalu fii ndab la loo xam ne dañ ciy def lu ñuy lekk wa wicaa wudui ak satla gi nga xam ne moom lay jàppe wa amsaka bi yadihi xirbata mu jël xeejam téye ci loxoom wa xallafa ximsa wa imaarataha waraahu mu wan ginnaaw xims ak kilifteef gam fa amoon ak cër yam fa amoon yépp mu bàyyi ko fa wan ko wan ko ginnaaw wantalaqa yaxussu alxutaa mashyan ala qadamayhi ila almadina mu départ di dox jéego yu gaaw foo jëm mu ne maa ngi wuy ji wooteeb amirul muminin fama kaada yablugu umayrun almadinata xatta kaana qad shajaba lawnu wa hazula jismu wa taala shaaru wa daharat calayhi wacfaau safar muy àgg Madina ndax tànkam la deme te diggante Cham ak Madina ku ci nekk xam na ne sori na ba mu àggee mu dal di soppeeku yooyu karaw gi gudd lool jeexitalu coonub tukki feeñ ci kawam fa ma kaada yablugu umayrun almadinata xatta kaana qad shajaba lawnu wa hazula jismu wa tala sha'ru wa daharat alayhi waafaau safar ay athaaru mashaqati safar sonn lool soppeeku lool xaraw nga gudd yaram waa nga fagg daxala umayrun ala amiri almuminina umar ibn alxataab fa duhisha alfaaruqu min xaalati wa qaal ma bika ya umayr fa qaal ma biya min shay ya amir almuminin fa ana saxiixun mucaafan bixamdillah axmilu maci addunya kullaha wa ajurruha min qarnayha bi Umayr agsee ci amirul muminin dugg Seydina Omar dafa tiit dafa jaaxle ndax ni mu mel ku ñu fal jaraaf nga nekk fa at mu mat sëkk ñëw mel nii mu ngi ko gisee dafa tiit ne ko lu la dal yaa Umar lu nekk ci yow mu ne ko ma biye min shay dara yaa amir al fa ana saxiix maa ngi ci maa ngi wér muaafan maa ngi am jàmm bi hamdillah maa ngi sant yàlla axmilu mai addunya kullaha adduna yépp maa ngi ko yanu téye ko wa ajurruha min qarnayha maa ngi koy diri ci ñaari wàllam yépp mu ne ko wama maaka min ad lan moo ànd ak yow ci àdduna lan nga yore booba Seydina Omar yaakaar na ne indaaleel na ko alal joo xam ne jii dana ko mën a def ci baytu maalil muslimin pour dépense publique bi ndax réew itam dafa am lu muy doxe daf ci am loo xam ne il faut que citoyen yi war ko génne ci impôt yi ak yu ni mel ñu war ko dajale ci trésor public ci baytu maalil muslimin bu état bi soxlaa ci wàllu njàng ci wàllu yar ci wàllu santé ci wàllu ay infrastructure ak lépp lu ni mel fekk état bi am na xaalis bu doy sëkk ci wàllu ngànnaay ci domaine yépp yépp yépp fekk poosu état fees na dell ba lum soxla du ko jëggaandi du ko du ko wuti fenn fa qaala maci jiraabi wa qad wadactu fiihi zaadi wa maci qascati aakulu fiiha wa agsilu calayha ra'si wa thiyaabi wa maci qirbatun liwudu'i wa sharaabi mu ne ko yaa amiral muminin maa ngi indaale sama mbuus mi nga gis ci laa def sama yóbbal maa ngi yore itam sama ndab lii te mooy xasaa bi di bagaan gii aakulu fiiha wa arsilu alayha rasi wa thiyaabi su ma bëggee mos dara ci laa koy sotti jaxase lekk su ma bëggee raxas samay fóot samay yére walla ma bëgg sangu def ci ndox sotti ci sama yaram maa ngi yore itam mbuus moo xam ne def naa ci ndox su ma bëggee naan ci lay naan su ma bëggee jàpp ci lay jàpp summa inna dunya kullaha yaa amiral muminin tabaun li yi hada àdduna ak li ci biiram ak nu mu mën a mel ak nu mu mën a toll ci luxe boo ko dee seet subordonné la ci lii nga xam ne bii moom laa yore mais lii ma yore mooy farat leneen lu ci tegu rek nekkul farata laysa min ad-daruriyat bal min al-kamaliyat wa fudlatun la xaajata li wala li ahadin gayri ginnaaw lii ma a wax ne moom laay yore leneen lu dul lii desit la woo xam ne bii soxlawuma ko fa qaala umaru wa hal jita maashiya umar ne ko waaw bi ma la wooyee pour nga ñëw lu la indi ndax danga dox wala danga war danga dox mu ne ko naam yaa amiral muminin dama dox sama tànk fa qaal sayduna omar na ko ama uctiita min al imaarati daabatan tarkabuha ndax jo joxuñu la ci cër bi nga fa yore dabba joo xam ne danga koy war mënoon nga am fas wala nga am mbaam wala nga am gëléem fa qaala hum lam yutuuni wa ana lam atlub minhum maa nga fa ak ñoom at joxuñu ma ko man tam laajuma leen ko sàkkuwuma ko ci ñoom fa qaal wa aynama atayta bihi li baytil maal waaw ana loo indil trésor public baytul maal fa qaala lam aati bi shay indiwuma dara fa qaal walima lu tax indiwuloo dara fa qaal mu ne ko lamma wasaltu ila xims jamactu sulaxaa ahliha wa wallaytuhum jamaca fay'ihim fa kaanuu kullama jamacuu shay'an minh istashartuhum fi amrih wa wadactuhu fi mawaadicih wa anfaqtuhu ala almustaxiqiina minhum mu ne ko ba mu àggee xims dama woo kilifa yi ne leen lépp lu jëm ci lu ñu war a dajale ci alal mu bara bàyyi ko ci nit ñi dem ci baytul man yéen laa ko féetale na ngeen ko méngoo ngeen dajale ko luñ mës a dajale indi ko itam ma diisoo ak ñoom ne leen fan lañ ko war a def ñu seet ña ko yeyoo ñu séddale leen ko ba dara du ci des فقال عمر لكاتبه جدد عهدا لعمير على ولاية حمص defaraatal léegi këyit nga yeesalal ci paluk Umayr mu delluwaat Hims continue liggéeyam fa qaala Umayr hayhaat Umar ne ko Umayr ne ko déedéet hayhaat hayhaata lima tuwaadun baat la boo xam ne arab daf koy jëfandikoo pour dàq mbir bu fekkente ne mbir daal bëgguloo mu am nga ne xëy xaat xëy xaat na ma sori na ma sori kalimatun tuqaalu amrin ma loo bëggul loola jage la daga naan xëy xaat xëy xaat fa inna dalika shay'un mu ne ko doyal naa sëkk walan amala laka wala li ahadin baadaka yaa amira al muminin ki tey dootuma la liggéeyal duma liggéeyal kenn yow amirul muminin ثم استأذنه بالذهاب إلى قرية في ضواحي المدينة يقيم بها هو وأهله فأذن له mu ne ko leen rek laa bëgg nga may ma ci ndigal ma bëgg a dem ci banlieue Madina bi am na fa benn dëkk su ma demee ma mottali fa li des ci sama dund Seydina Omar ne ko may naa la ci ndigal lam yamdi ala dahabi umayrin ila qaryati waqtun tawilun xatta araada umaru an yaxtabira saaxiba wa an yastawthiqa min amri fa qaala li waaxidin min thiqaatihi yudcaa alxaaris intaliq yaa xaarisu ila cumayr bni sacd wanzil bih kaannaka dayf fa in ra'ayta calayhi aathaara nicmatin facud kamaa atayt mu ne ko demal mu dem mu toog fa ab diir Seydina Omar ne kii daal li tax mu ñaan ma lii ñàkkul dafa am lu mu toogaale mu ne danaa ko nattu dana seet ba xam ndax dafa am lu mu jële ci gafaka ga bëgg a toog ak moom bëggatul a liggéey mu seet kenn ci ñi nga xam ne ay prochèm la ay ñu ko ko jege la ñu koy wooyee xaaris mu ne ko demal ca Umayr ibn Saad boo demee nga wàcc fa mel ne gan arab yi dañoo bëgg gan bu fekkente ni bii gis nga ne mu ngi dund ci xéewal ak aisance ak abondance bu ko wax dara tàggu ko rekk nga ñëw wax ma la nga gis wa in wajadta xaalan shadidatan fa aatihi hadihi dananir wa naawalahu surratan fiha miatu dinar bu fekkente ni bii toog maa moom ay fan nag gis ne sonn yorul dara mbuus mi téeméeri diinaar a ngi ci nga jox ko ko intalaqa alxaarisu xatta balaga saadin fa saala anhu fa dulla aley dem ba àgg ci village ba Umayr nekk laajte ko ñu tegtal ko fi mu nekk falamma laqiyahu qaal assalaamu alayka wa ba mu demee ba daje moom mu nuyu ko fa qaala wa alayka assalaam wa wa barakaatu min ayna qadimt mu delloo ko nuyoo ne ko foo bàyyi ko fa qaal xaaris gan ko min al fa qaal kayfa tarakta al muslimin naka nga bàyyi jullit ñi fa qaala bi xayr Umar ne ko waaw kayfa amirul muminin naka suñu kilifa fa qaala saxiixun saalix maa nga fa yiw rek dara jotu ko alhamdulillah mi ngi sant yàlla fa qaala alaysa yuqiimu alxudud Umar ne ko ndax ku def loo warta def jàdd yoon ndax du def lay yoon la ko yoon sant wala déet mu ne ko ah kay qaala bala mu ne ko ah kay walaqad darabnahu walaqad darababnan lahu li faaxishatin ataaha fa maata min ad am na kenn ci njabootam koo xam ne dafa jàddoon yoon mu teg yari yoon ci kawam ba sax ci la génne àdduna فقال اللهم أعن عمر فإني لا أعلمه إلا شديد الحب لك mu ne ko yow yàlla maa ngi lay ñaan yow mi nga xam ne ndimbal ci sa loxo la nekk koo dimbale mu am ndimbal koo seetaan mbiram du sotti maa ngi lay ñaan yàlla na nga dimbale sa jaam bii di Omar li ma wóor te xam ko daal mooy cofeelam ci yow amul limite أقام الحارث في ضيافة عمير بن سعد ثلاث ليال فكان يخرج له في كل يوم قرصا من الشعير mu def fa ñetti guddi bis bu nekk lu tuuti ci xeetu dugub bu ñuy tudde sha'ir moom lay génne moom la ñuy lekk falamma kaana al yawmu thalith qaala lilxaarisi rajulun min alqawm laqad ajhadta cumayran wa ahlah falaysa lahum illa hada alqursu alladi yuuthiruunaka bih ala anfusihim wa qad adarra bihim aljuucu waljahd benn waay ne ko xaaris yaa ngi sonal Umayr yaa ngi koy teg coono mook njabootam lii moo lay jox muy dugub ji mu lay jox nga di ko lekk ñu ñu ñu ñu ñuy ëfle di la ko jox ngay lekk ñoom ñuy fanaanoo xiif metti na ci ñoom te sonn nañu lool nag dañ la ko mënta wax fa in raayta an tataxawala anhum ilayya fafaal bu fekkee da nga ñëw pour gane maa ngi lay ñaan nga bàyyi leen fi te nga ñëw ci man ndax man lu bon bon am na lu ma yàlla dénk inda dalik axraja alxaarisu addananiira wa dafaaha ila umayr xaaris ba mu demee ba gis ne kii situation demewul noonu kër gi dara nekku fi dëkkuwaay bi amul lal amul meuble ndox amul lekk gi demewul noonu tuuti dugub lañ yore wala sha'ir boo xam ne bii ci lañuy lekk mu gis ne ñi daal sonn nañu mu ne kon naa def la ma Seydina waxoon su ma gisee ne seen situation demewul noonu ma yëkkati alal ji jox leen naa defal naa def la ma waxoon mu yëkkati alal ja jox ko Umayr lan la ko Umayru tontu ak fan lañu mujj ñu bàyyi ko incha allahu tabaraka wa taala bu ojo bii di ñëw yal nañ yàlla may tawfiq ci barke saydina muhammad alayhi salaatu wassalaam hada wa billahi tawfiq wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu